asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi nga xam ne nii yéen a ngi toog di ñu seetaan ci seen ay kër ak fu ngeen ñu mën a toog di ñu seetaane rek ñu ngi leen di ziare di leen ñaanal di ko sàkku ci yéen tey nag ñu ngi fi nga xam ne moom mooy biir arène nationale li ñu fi nag ba tey génnu làmb ndax ñun bu ngeen gisee suñu kanam rek dèjà làmb ngeen di xalaat kon képp koo xam ne rek sénégalais nga ñu ngi lay ziare nga nekk ci Sénégal fii di fi dund wala nga nekk ci diaspora bi ñu ngi lay ziare di la ñaanal jàmm waaye tamit di nuyu monde làmb comme ni ñu koy waxee liñ fi indi tey nag ñi nga xam ne nii ñoom ñooy les lutteurs en activité wala les lutteurs ci boppam te Gris Bordeaux nekk seen président ñoom ñoo am lu nga xam ne nii déjà ñoom ñoo ko woote ci seen turu kilifa di Gris maanaam état du Sénégal moom moo génne 200000 logements teg ko ci taabal ji pour lan pour sénégalais yi sénégalais yooyu nag maanaam waa làmb dañ cee bokk rawatina mbër yi bi loolu amee nag Gris Bordeaux mi nga xam ne nii moom moo leen jiite dal di nekkoon il est l'heure mu woo ay mbokk mbërëm ñoom tamit ñu jéem a fexe nu ñuy seete ba am ci deux cent mille logement mooy yooyu nga xam ne Sénégal ko tax a jóg seen wàll parce que olof a koy wax ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi deux cent mille logement yi nag ni mu demee cent mille logement di moins man ma yóbbu ko ba deux cent mille waaye so ba tey benn la yàlla na nekk deux cent mille sax hmm? deux cent mille yaa gën na ko président def deux cent mille waaye cent mille logement la maa ngi jéegul ah cent mille moo waral woote bi tey waa làmb war ci gis seen bopp rawatina mbër yi mu mel ni ki nag euh, gisin bi ni muy demee ngir xam naa dina expliquer mais li ci am solo daal mooy boo bëggee dégg-dëgg fiche bi nga xam ne moom lañ lay jox fiche boobu moom ngay remplir boo ko remplir nag def si sa photocopie après nga joxe ko loolu la ñuy déposé fi nga xam ne ni moom mooy ministère de l'habitant parce que ñooñu yaakaar naa ñoom ñoo wàllum kër yi waaye nag dañuy nuyu ñëpp bu ñu nuyoo nag nuyoo bi kiñ ñu ci jiital mooy suñu papa ji toog nga xam ne moom. suñu per la tous les temps suñu nijaay la suñu lépp la di père Bourkhane Wade moom waa macha allah daal nit la ki nga xam ne royukaay la ci ay parolam royukaay la ci ay jëfam ñu ngi koy ñaanal yàlla papa yàlla na nga fi yàgg te di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ci salle bi mbër yi fi nekk yépp ak yi ñëwul euh, li nga xam ne tamit jar na ci leeral te tey giri wax ma ko mooy mbër yi nga xam ne tey boo xoolee am na mbër yu mag yoo xam ne gisoo leen fi parce que mbër yi mag yi fi mu nekk nii ku ci ne yaa ngi combat ko waajal am na loo xam ne olof a wax tëgg tam ak xesanu mënuñoo ànd ça veut dire que dañoo sumb sumb boo xam ne fi mu nekk nii bala ñoo talda rek faw ñu defar ko ba pare waaye ñoom ñoom ñooñu nga xam ne tam ñoom ñooy mbër yu mag yee VIP xëy na ñoom li yaakaar na sama naam duñ ci bokk parce que li tax mooy tey boo jëlee benn Modou Lo wala benn Balla Gaye wala benn Boy Niang wala keneen ku mel ni ki ñoom ci seen biir yàlla dogal na ni ñoom ah am na fu leen yàlla teg ci làmb parce que loolu yàllaay dogale noonu kon defe naa 100000 euh, logements yooyu tey su Gris Bordeaux jógee taxaw ànd ak ay mbokku mbërëm dafa am ñu nekk ci suuf ñoo xam ne ay xale lañu yàgg sonn ci làmb am na ci ñoo xam ne sax du ñu ay xale mais loolu daj nañ ko ci làmb mën naa am Gris Bordeaux dàqu leen a bëre wala Modou Lô wala Balla Gaye xëy na yàlla moo dogalul seen wërsëg ci làmb comme ni mu ko dogalee ci kaw Gris wala kaw Eumeu Sène te ñooñu dañoo war a am dara te it nag ay sénégalais lañu te ñooñu boo xoolee salle bi di nga fi gis ay mbër yoo xam ne li leer ba leer mooy Tafa Gueye demee rek yaakaar naa ne man Gris Bordeaux bu waxee rek te yàlla tax dafa Gueye de na ko bëri ci biir Fass te tey yàlla dogal na ni Gris Bordeaux fa yàlla yóbbu ci wàllu dayo làmb financièrement wax dëgg yàlla yóbbu fa Tapha Gueye 2 mais loolu da koy nangu parce que yàlla mooy dogale noonu ay mbiram. jërëjëf Babacar ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yow tamit di la delloo char ah di nuyu bu baax a baax assistance bi toog ci biir salle bi yëpp vraiment di nuyu président Gris Bordeaux moom tamit nga xamante ni franchement boobu ba léegi moom it mi ngi yor pusum rek di ñëw da ngay xam ni moom du boppam rek moo tax mu woote mais dafa woote ngir axlu làmb dafa woote ngir ñi nga xamante ni ñoom la bokkal benn association ku ci nekk gis sa bopp ci association bi vraiment di nuyu suñu per père Bourkhane moom suñu pàpp la nit ku baax la référence la waaw Gris Bordeaux wax na ko léegi ay champion rek ñoo fi daje ñu ngi leen di nuyu bu baax di jiital ci nuyo bi nag euh, Moustapha Gueye numéro 2 Ousmane Koma suñu frère la suñu xarit la di nuyu ñëpp ah doomu bay la mi ngi noonu di dóoru yegg si ak ñi fi teew ñëpp mais vraiment ñu ngi rafetlu initiative bi am na solo 100000 logements Babacar du ay fo 100000 logements buñ ko waxee tudd ak lu làmb du mbër kase ax lu làmb dafa yaatu ax lu làmb ah ax lu làmb promoteur mi ngi ci ak lu làmb ménager mi ngi ci ak lu làmb presque en ligne bi mi ngi fi ak lu làmb presse onze bi kalimat laay taamaat min sharri maa bi nu sante yàlla julli ci Baay Laay ak Seydi ñu ngi nuyu assistance bi yëpp di wax ni lii moom sant yàlla la santati yàlla la sax ndax làmb tey jii kenn ku ne gis na jéego yi mu def waaye association des lutteurs en activité tamit kenn ku ne gis na acte yi mu def dañoo commencé par li ñu buggul woon yëpp ñu dindil leen ko tey nag ñu commencé teg ay jalon jalon yi nag euh, dafa commencer am njariñ parce que fexe nañu ba seen association dëgër nekk association bu représentative ba pare defar seeni carte de membre képp ku bokk ci association bi xam nañ la jalon yi bokk na ci projet yi nga xam ne président wax na ko muy euh, couverture maladie universelle bokk na ci tamit euh, euh, yi nga xam ne defoon nañ ko ci Covid bi dem dajale seen alal yóbbul ko ministre de la santé ànd ak seen ministre tutelle projet yi bokk na ci cent mille logements yi nga xam ne moo tax tey ñu daje fi Euh, am na ñoo xam ñoo xam ne tey jii danañu ñëw ci mbir mi mais ñoom dañoo ñëw rek pour dooleel acte bi mm-hmm. dooleel mooy tey ki moom ki am kër mm-hmm. kooku daanaka mu bokkul ci projet bi waaye tey ñëpp ñoo fi war a daje mm-hmm. pour au moins ñi nga xam ni ay nécessité la ñu mën a yëkkati yëfi jox leen man damay fàttali rek ni acte yi nga xam ne làmb mi ngi koy def su ko président la république xamoon wala ñi nga xam ne ñoo jege di ko ko wax kon nëg nii tey jii suñu secteur euh, dépassé na fii waaw ndax am amoon naa ñoo xam ne ñu ngi doon xalaat ay coopérative euh, ci ay coopé coopérative d'habitat mais tey jii bu fekkee sans logement yi dugg na nit ñi ñëw adhéré ci ñi nga xam ne ay nécessité la ñu jox ñu jox leen seen i yëf dañ xam ne tey jii président Gris def na acte bu rëy rëy rëy waaye di fàttali nit ñi rek ci yi nga xam ne làmb def na ko ndax bërki démb Ndiaye rek gis ngeen Siteu li mu def euh, ci ci jàmm gën kon loolu yëpp pour won président de la république ñii ay nationaliste ay nationaliste lañu ay patriote lañu lépp loo xam ne état soxla na ko làmb mi ngi ci dugal loxoom ñu ciy gërëm bu baax nag président Gris ci acte yi nga xam ne mi ngi koy def ma bàyyi ko mu développé li ci def. defe naa coronavirus bi mu duggee Covid bi man keroog bokkoon naa ci ñi doon demoon couvrir yi fa fa la nga xamee moom mooy ministère de la santé keroog def naa doyoñ fa yóbbu bëri woon na torop ñoom Modou Lo ñoom Boy Niang Yékini seen mag ñëw magal leen ànd ak seen président Gris Bordeaux kon ñi ay citoyen pire lañu ñu ngi koy wane saa su nekk nag kon yaakaar naa loolu nag mooy am réew am réew moom boo ci nekkee da nga koy bëgg rek bëggi tamit jàmmi réew ma lu réew ma xewle nga dugal ci sa loxo kon Gris dafa naa ne kàddu gaa ngi noonu aouzu billahi min assamil alim min asheytani irajim la qawla wala quwata illa billahi al alim azim mbokk yi ñu ngi leen di leen kontaane di leen ñaanal jàmm te du ko sàkku ci yéen di nuyu ñi fi teew yëpp suñu frère wu mbëri ci nag suñu nijaay suñu xarit muy père Bourkhane di nuyu tout la presse waaw parce que ñoom suñuy xarit lañu ñoom suñuy nit lañu lépp loo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy dëgmal rek nañ ci ñëw du joxe def ci seen partition ci nuyu presse en ligne beeg presse écrite bi yëpp rawatina suñu mu xaddam bi tey moom xamee wu ko sax bàyyi bàlla mbuub tey moom dama yaakaar ni dañ koo seexal sama ginnaaw te ma ko waa di nuyu euh, sëriñ Babacar di nuyu suñu soxna yi suñu ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar di nuyu nag suma suma bureau bii nga xam ne ñoo toog suma wet euh, di ñu ma jàppale ci liggéey bi parce que tamit euh, jiite mbooloo metti na waaye nag jiite ay mbër moo gën a metti loo gis waaye ñu ci sant yàlla parce que tamit euh, bàyyiwuñu jiitaluñ ñu bàyyiñu ñu mbooloo mi parce que yàlla dogal na ñu am ay nit yu yàlla baaxal ñoo xam ne am na ñu fi teew bokk ci bureau bi am na ñu fi teewul parce que ay euh, euh, temps suñu secrétaire général Frazier Abdou Koña Ndoye ñu ngi koy giar euh, di ko ñaanal jàmm dafa xaw a jagati tuuti moo tax teewu fi waaye nag euh, am na ñu ko fi teewal ak ak suñu coordonnateur euh, Serigne Mbacke Ndaw mi ngi fi ñi nga gis ñu toog nii yëpp mooy bureau bokk nañu ci bureau association bi laay bay numéro 2 mi ngi nii toog suma wet 57 Mar ay nit yoo xam ne xam naa bu nekkul woon sama wet bàyyi naa leen association bu yàgg dem sama wet parce que métti na xam naa ay nit yu valeur yu mel ni Seydina Ousmane Koma bi jàkkaarloog man mel ni moor Mor Silla Sëriñ Mbàkke Ndaw mi ngi nii sama wet euh, Medoune Khoule euh, ñaari yaar sapeur sapeur bi nga xam ne moom li muy fay lakk bariwul mi ngi ni sama wet doomu ndeyu euh, bayla xam nga parce que tamit jiita mbooloo metti na méttiwul waaye boo amee bien vrai que parfois suñu jot may ñu ko sax may mayuñu ko sax waaye bu ñu la jiitalee da ngay bëgg ndam da ngay bëgg waaw góor te waaw góor na dara mayu ko mayu ko lu dul nga fépp fu projet nekk rek wala fépp foo xam ne tey lu yokk mbër wala ñu parce que làmb dañuy wax ne làmb du mbër rek comme ni ko kilifa kilifa yu waxee làmb c'est toute une corporation mooy ma làmb bien vrai que mbëri ñooy les acteurs waaye dafa bëri ay branches yoo xam ne dañ ko dañ ko séq ak waa làmb ku mel ni les communicateurs traditionnels ci lañ bokk les anciens ñi nga xam ne tey euh, ñi ngi fi euh, ñu ko mel bi presse baa ngi fi les entraîneurs waaw maanaam làmb daal làmb daal ñi ko ŋànk dafa bari waaye li ci am importance rek mooy daal euh, maa ngi sant di gërëm di di beral nuyoo toute l'association nationale de lutteurs ñi teew ak ñi teewul surtout nag ñi nekk bitim réew xam ne nag euh, ba ñu génnee ba ñu génnee ci làmb yàgg na dañoo bokkatul ci làmb dañoo takkatul ngemb waaye tey lañ gën a contribuer ci làmb fiche yi tey ñu ñu ñu ñu ñu war a remplir nii tey ñi nekk bitim réew nekk ay mbër presque ñoo ñoo ci ëpp kon ngeen xam ne projet bii bari na ñu mu soxal bari na ñu ko gëm parce que nag projet bi bi muy bi bi ko état du Sénégal tegee ak léegi mi ngi bëgg a yàgg ñun nag mbër ñoo nekk ñoo ñoo ñoo bëgg di dox ci informel parce que informel baaxul informellement yi lu jóg lu xew rek nga ne ah lii ay naxaate la dama doon waxtaan ak suma benn kilifa bërki démb suma xarit la mu ne ma li may rëccu sama àddina mooy euh, projet Tata bi mu amee dama parce que transporteur la mu am ñeent mu am mu am ay car rapide parce que projet Tata yi il faut nga joxe car ñu jox la Tata loolu moo doon projet bi pour rechange ak ya cay topp grand bi bi pro bi mu yéegee projet bi dafa na ah lii daal ay naxaate la te noonu la ko projet ba rombee tey moo gën a pour mu am ci tataa yi coono bi bi mu ciy daj moom rek moo ko xam kon boog am na loo xam ne état balaa nga koy reprocher dara il faut la nga la nga war a def nga def ko dañoo teg projet na cent mille logements cent mille logements yi am na ci ñoo xam ne dugg nañ ci te jaaruñu ci association am na ñoo xam ne dañ ci dugg ci plateforme bi lañ dugg plateforme bi boo duggee ci internet léegi Sénégal tout est numérisé amul lenn loo xam ne da nga koy war xanaa nga bañ a jàng wala nga bañ a xam mais boo jàngul sax nga laaj ay nit am nga benn grand wala benn nijaay wala sœur wala dara nga ne ko man damaa bëgg a inscrire dugg ci plateforme bi bokk ci euh, bokk ci 100000 logements yi lii lu am la mais nag jaaree ko ci association li tax kuréel am importance mooy am na loo xam ne mbooloo lii tax mbooloo war a dajaloo parce que ñëpp ñun mbër rek ñoo am problème ñii di jaar gauche ñii di jaar droite. ñii di jaay ndey xam nga mais tey Sénégal ñëpp a ngi booloo ñëpp ngi dej ay fondation ñëpp ngi bool parce que tamit mécaniciens yi ña ngay ànd parce que ndax bañ ko leen néewal doolu ëllëg transporteurs yi waxu nopp bari ki dem nga dégg léegi ñuy jaay mburu bu ñu booloowul woon jaar gauche jaar droite nii lu ne mën na leen ko teg mais tey bañ taxawee fëkk ci taalu bi na lii ñuy teg attanuñ ko lii moo ko waral ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari fan ñetti fan am am ay njóobeen nag ay njaayeen yoo xam ne dañoo bëgg mburu am na ñoo xam bu ñu xëyee suba lekk ñu mburu dañu am lu leen naqari état woo ne leen waxtaan ak ñoom ñu explique leen te ñu wàaj la ñuy ñaxtu ñu def ko looloo waral mbooloo ñun nag mbëri nag on a problème majeur boo xam ne jiitu na sax suñu juddu te loolu j'espère que génération bi war nañ conscient ni mbooloo mooy doole lii tey projet bii tey nii li tax ma porte ko mooy man nañ jiital buñ ma jiitalul woon ci boppu mbëri aw ma jot bi mais nag war naa man tey ñu jiital ma ci boppu kuréel boo xam ne tey mbëri ñi fi nekk yëpp fii yëpp ay champion ñoo fi nekk waaye yàlla nag mooy joxe wërsëg Moustapha Gueye numéro 2 mi li mu daj ci làmb ak Seydina Ousmane Koma mii man barki Cheikhou Tidiane xam naa ne dajuma ko waaye wërsëg ma yàlla may ci làmb man aw ma ko non amuñu ko loolu moo am fépp man gis naa ay footballeur yu mag a mag a mag a mag a mag yoo xam ne tey lañu nañu mëne woon football actuellement ni footballeur yi li ñuy lekk yàlla wërsëg bi mu leen wërsëgal ci football amuñu ko parce que yàlla nag mooy mooy mooy moo mooy jalla jalaaluhu parce que yàlla moo ne inna allaha maa ma yàlla maay xam xam lépp maay def lépp xam nga kon nag am na loo xam ne fee ñi fi teew ñi yëpp c'est des champions waaye nag wërsëg leneen la wërsëg beneen affaire la yàlla mooy xool ku ko neex mu jox ñun tey cent mille logements yi état bi exclure na ci VIP yi mbër nekk ci kaw parce que ñooñu am na mais tey dañuy wax ni dañ ko teg pour ñi nga xam ne tey seen loxo jotul seen gannaaw pour sénégalais yëpp waaye nag ñun làmb ñu nekk benn kuréel boo xam ne Gris Bordeaux moo jiite association nationale des lutteurs Gris Bordeaux tey yàlla may na ko ay pexe may na ko xame mu war a organiser wu woo mbër yi nga xam ne projet bi concerné la leen mu woo leen na leen projet bi kat mën ngaa jaar fu ne waaye jaaree ko ci association ci kuréel boo xam ne mbooloo la bu ko defee ku ci nekk remplir fiche ba nga war a remplir bu ko defee tey bu ñu fa jógee fa mu war a jaar yépp mu jaar fa parce que le ministre de le ministre de de de l'habitat c'est notre ami suñu xarit la te mi ngi nekk ci monde sport du Sow ñu ngi koy ziar di ko nu fii tey le ministre Matar Ba tey ñu ngi koy ziar di ko kontaane di ko ñaanal jàmm di ko sàkku ci moom di ko ñaanal yàlla dëgëral ay cëram ba moo xam li mu bëgg ci sport Sénégal particulièrement la lutte yàlla may ko ko parce que tey lii tey bi ma ko jógee tey engagé woo ci dama ko woo téléphone loo ko ministre su ma sañoon tey saal bii tey salle bi bi ma ko waxee ni ko fii laa ko bëgg defee dama ne loolu dafa mel ni géej am na ndox danaa woo diw boo leen demee ngeen ubbi ko da ngeen fa bëgg waxtaan heure sàngam parce que kooku jox na làmb cër kooku xam na loolu mu def tey dafa lu ko Gris Bordeaux loolu képp ku nekk ci làmb dañ la ko defal tey bu ñu fonkul woon tey joxuñu cër amul fu ñu teg mënoon nañ tey bëgg def lii di ut ut fu ñu ko defee kon nag kooku tey bu ñu toogee fii dafay jaar ñu jaajëfal ko parce que ku dul sant nit doo sant yàlla. waaw ku dul ku sant ku dul sant nit doo sant yàlla loolu nag c'est des gestes tey ku ne xam nga ni période bi période campagne la pour le pour les localités dafay waroon teew bi ma nee ko midi laa koy def mu ne ma moo ko def ko. trois heures ndax ma ndax ma teewee ko kooku la wax loolu tey fonk na la fonk na waa làmb barke Cheikh Tidiane mu ne ma boo ko defoon trois heures ne ko parce que li tax mënu ma ko renoncer parce que lancé naa ko ba pare wax naa ko kuréelu làmb yëpp wax naa ko ñëpp ne midi moo tax mënuma ci dell ginnaaw waaye ku bëggoon teewe bés bi la te lan la lan la ma ci tegal li tax tey lii tey ma xam ni yàlla ma ci mayee ndam bu ma tëddee nelaw bu bu cinquante mbër doon am kër avantage yi jaral na ma ma daj ci ay coono ba ba ngeen <laughs> maanaam am na ci loo xam ne yàlla xol lay fay waaw parce que man moom damay wax ni li arab naan al aynu tadma wal qalbu tahzan li ma yéen ay li ma yéen a mbër yi yàlla ma ko yàlla defal que <laughs> xam nga